actuellement nii maa ngi ci école euh, école 7 euh, lii laa fi gët a gis euh, a gum il de vote nit ñaa ngi commencé di ñu di mais nit ñi ñiy voté ci bëriwul daal li ma fi gis moom bëreegul wax dëgg fa yàlla li lii laa fi gët a gis mu ngi nii Assalamualaikum, euh, ñu ngi ne école 7 euh, euh, gis nañ nag nit ñaa commencé di ñëw di voté si soxna si mën nañ xam tur be sant bi. maa ngi tudd Fatou Florence Oumy Fatou sa point de vue par rapport ak vote bi li nga gët a gum gis fii loo non macha allah se déroule très bien. Mhm. di dans le calme. Mhm. franchement amagul benn bruit. dañ mhm. ñaan yàlla mu continuer noonu kon di si yow nga wala benn vote bi kii nañ ma indiqué nañ ma jàppale macha allah. mag ñi aussi ñu ngi leen di jàppale bu baax. âge bu ñu ñëwee duñu rang. waaw dañ leen di jàppale ñu voté correctement. Mhm. franchement looy ñaax sa mbokk jigéen ñi ñu war a ñëw voté. ñoom ñëpp nañ ñëw voté en masse. Mhm. ndax ku ne sa carte mooy sa carte. Mhm. wax ji yëpp jaru ko xeex jaru ko mais ku ñëpp nañ ñëw voté si en masse ku ne voté sa candidat yàlla defal ñëpp jàmm. ci kàttanu yàlla dara jëy Seydina Mouhamed yàlla lépp sedd. merci Sénégal la rek. merci beaucoup Fatou. si su demee ba ngoon bu ko mm-hmm. ci yàlla jox rek mm-hmm. uh, rek kooku rek moo koy jot mm-hmm. incha allahu rabbi merci beaucoup madame la maire ah. ñu ngi lay jaajëfal sa mot de la fin waaw de la fin mooy euh, élection municipale du léegi la fi am am na fi amati fi ku nekk da ngay am désir dangay am envie jàppale sa gox mooy tax nit ñi di wax di laaj. Mm-hmm. di laaj baatu askan wi. Mm-hmm. baatu askan boobu nag. Mm-hmm. ku ko ci askan wi jox. ngal na mën a jëriñ askan wi ëllëg. loolu rek lañuy ñuy laay laay laay euh, joxe. comme message. ma lay gërëm bu baax a baax merci beaucoup merci madame la maire jërëjëf. Euh, actuellement ñoo ngi école set ba léegi ñoo ngi jàkkaarloo ak madame la maire euh, kooku di Koudiba euh, madame la maire Koudiba sa point de vue li nga gët a gis ci école set ci élection bi loo ñu mën a wax. waaw salaamaaleykum sama sama compagne. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu bu baax. Mm-hmm. di rafetlu bu baax aussi sa interview bi. Mm-hmm. di wax ne xëy nañu. si jàmm. di wax rek alhamdulilah rabil alamina. di. gis ne rek ni wax dëgg yàlla. Mhm. tout se passe bien. Mhm. alhamdulilah. Mhm. ndax nag fii. ñun ñëpp ñoo bokk. ñun ñëpp ñoo bokk mhm. li ñu boole moo ëpp li ñu mën a tàqale mhm. kon nag euh, gis nañ ne daal mhm. dëgg yàlla euh, harmonie baa fi ambiance baa ngi fi ñoo ngi saafonte di ñaan yàlla rek ni ah euh, nii mu commencé nii donc mu mu mu yeggee noonu ci ci journée bi ah madame le maire la ngay ñaax jigéen ñi nga xam ne actuellement ñoo ngi toog seen kër yi bañ a ñëw parce que pratiquement boo xoolee école yi góor ñi ñoo ëpp ñi fi nekk tey par rapport ak ak jigéen ñi te da ngi naan Sénégal jigéen ñëpp góor ñi loolu sa point de vue loo si wax. waaw xam nga en général jigéen ñi bu ñu xëyee mhm. dañuy lijjanti kër yi mhm. dañuy dem marché mhm. euh, préparer xale yi loolu moo tax sax actuellement góor ne xale yi ëpp fi. mais si kanam ñoom en général euh, vers euh, douze heures jàpp quatorze heures moment yooyu donc ñoom ci la ñuy ñëw voter si mais nag ñu ngi ci yoon bi waaw ñu ngi ci yoon bi parce que gis nañu daal nit ñi quand même am nañu désir envie donc d'aller d'aller voter mais en tant que mère de famille en tant que jigéen en tant que responsable politique lan ngay ñaax euh, euh, ndaw yi nga xamné tay ji ñu ngi s'adonner à des actes de violence euh, depuis campagne bi surtout tay mu nek jours yi lan nga leen di sensibiliser wax leen ñu ñu ñu c'est à éviter ou bien lan lañ wara def. waaw violence bu su régler dara. Mhm. dara violence musu koo musu koo régler. Mhm. kon nag dañuy woo ñëpp. Mhm. ci jàmm. na ñëpp taxawee taxawaayu jàmm. jàmm nag bu ko nit di woote tamit da koy commencé ci wàllu ci boppam mhm. kon nag képp koo xamante ni rek mhm. si xolam rek yéene na si jàmm mhm. képp ku mu ko ku mu ku mu jàkkaaloo rek jàmm jooju rek lay gis ndax ba nga ma gisee ma dugg ci école bi boobu ba léegi mënu maa dem voté ji ndax sama ay frères yi ma fi fekk sama ay sœurs. ñu mhm. may xëcc ci gauche droite. Mhm. ku ma ci gisul sax yaa ngi may woo. Mhm. pour ñu ñëw ñu ñu ñu ñu nuyoonte ñu ñu saafonte. kon nag euh, dañuy wax ne rek. na euh, ñi nga xamante ni. loolu am nañu sax lu leen ci. effleuré tuuti mhm. nañ ko génnee ci seen xel yi mhm. te xam ne que ni ndam bu mhm. yàlla jox rek moo koy moo koy jël euh, jullit nag faaw mu def sabab lépp lu actuellement nii école sept euh, maa ngi jàkkaarloog benn benn monsieur euh, sëñ bi mën nañu xam tur bi sant bi Demba Diop laa tudd monsieur Demba sa point de vue li nga jot a gis si si fii si vote bi d'abord euh, damay wax alhamdulilahi rabil alamin mhm. parce que li euh, mhm. normal mhm. ci jam ak salaam di ñaan yàlla yal na def mu continuer noonu nit ñi ñi ngi dem ñu ngi ñëw ñu ngi voté ci jàmm di ñibbi ci di ñaan rek dans l'ensemble du territoire Sénégal def euh, ñu ko ci ak le meilleur gagne monsieur Diop mën nañ xool fii presque y pratiquement douze bureaux de vote si école 7 bi léegi nag yaa ngi gis nit ñi est ce que nit ñi ñu ngi ñëw di voté si waaw nit ñi ñi ngi ñëw di voté si mm-hmm. parce que boo gisee ni école bi parce que man maa ngi fi depuis six heures du matin mm-hmm. mais nit ñi ñi ngi ñëw di voté si am na ñu bëri ñoo xam ne voté nañu ba dem mm-hmm. kenn ku nekk yaa ngi def sa devoir si ngi rek après def ko rek dem ñibbi dem toog loolu yëpp ci jàmm ak salaam la rek waaw kon yàlla nañu ko yàlla boole waaw ñu woote ci jàmm ci jàmm douze bureau de vote yëpp macha l'essentiel ko mooy yëppoon nañ commencé waaw commencé ko di problème ay euh, enveloppe ay problème kii du vote commune euh, du voté ville ville commune lay du voté mais lépp nag après mujjee ci jàmm. Mhm. terrain d'entente. Mhm. ba affaire bi macha allah. Mhm. nit ñi ñu ngi voté ci jàmm. mais matériel électoral bi est-ce que mën na dara amul si benn faay

yàlla ci kattanu yonent bi mhm. di ñaan yal na yàlla dolli jàmm bi mhm. ñu continuer nii mhm. parce que bu continuer nii rek dinañ xam ne démocratie bi nga xam ne moom la Sénégal amoon ba léegi dina mën a exister que mu bañ a am ay violence kon loolu lañ doon ñaan mag ñi di ko ñaan kilifa di ko ñaan ñuy ñaan nag nit ñi askan wi nañ ñëw woote ci jàmm delluwaat ci jàmm waaw na nit ñi génn ñëw woote ci jàmm delluwaat ci jàmm loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla defal amiin